fu mu toll nii Sénégal rawatina gannaaw audio yi nga xam ne nii kii di audio Amady Badiane bu mu génnee yëngal na bu baax a baax Sénégal waaye rawatina fële di Ramadane bu mel ne déglu maanaam audio bi daal di ñëwaat ci plateau bi daal di koy faram-fàccee ànd see ki nga xam ne nii mooy noo rëy nii mi nga xamee ni nii la gars yi di xaar borom lu ñuul li noonu la ko gars yi waxee korom borom lu ñuul li nga commenté li lay wax nee na ñuul li. Hmm. <laughs> ma ne la tudd borom ñuul li maa attends en tout cas daal bu fekkee ne audio bi pare na ñu daal di koy déglu déglu maanaam kii di Adamo gannaaw bu mu génnee audio yi nga xam ne nii kii di Amady Badiane moo ko doon wax di koy kaw kàddu kii di Waly Balago Seck moom dañ jàpp na ni lépp lu ko indi mooy kii di Baysal Baysal moo indi loolu yëpp parce que moom comme à chaque fois mu koy waxee euh, ci biir audio yi nag ñoo ngi dégg ay kàddu yi nga xam ne nii mun nañ wax ni yaakaaruñu woon dinañ ko dégg ci kii di Amady Badiane buñ déggee maan naan man ak moom toogatuñ ak chaque fois ngay dégg ñu naan ay meilleurs amis lañ di dem banaan naan ba mu fekkee ay rumeur la woon Sénégal yi bëri jàpp ne Wally Seck dafa jël ku si mel ni Omaro ku si mel ni Baye Zall daal di koy teg ci kaw ñi nga xam ne nii ñoo ne ko ay xayti démbam ba kii di Pawlish ak Adamo génn di ko à chaque fois di ko xeex mu mel ni audio yi firndeel la si. Sénégal yi yéen nag xamu leen loolu ay dof ngeen ñun ñu nekk Ramadan nekk ci biir ñoo ko xam dinaa ñëw ci kaawu Awa ak Banaya ci ngeen di bàyyee àdduna Ndeye Ndiaye ak Awa ci ngeen di bàyyee àdduna Youssou Dieng ak Waly ci ngeen di bàyyee àdduna ma ñëw ci ñeneen ñi xanaa yi da ngeen a dof toog leen di déglu rek Waly la neex am ma dee leen ko gën a xam foofu ñëpp ko xam loolu toog leen di déglu rek. ac mu ne kàddu yi nga xam ne nii gis ngeen maanaam Adamo yëkkati na ko waaye tamit audio bi nga xam ne nii dégg ngeen Amadou Ba yaa ngi yëkkati ay kàddu ne moom moo ko waali gën a gisante am na yeneen kàddu yi nga xam ne moom ñëw moo si yàgg bu ne ba ay saaga si jóg saa bi di fu mu toll nii Ouz Ramadane jaxasoo na problème Wally Ballago Seck Amadou Badiane ñun doon naan ay rumeur dara amu si dafa mel ni lii firnde bi la. félicité waat ma rek ñu damay yàgg di leen félicité chaque jour. waaw ah. te am na beneen deuxième audio beneen audio bu génnee audio Pawlish bi. Hmm. si boobu ngay gën a sa bopp. neewoon naa la ànd dëmm la de ku jeeku sa morom di ko lekk. Mhm. ñëpp ku jeeku sa morom di nga ko lekk. correct nag dafa am solo te yàlla dogal na ñoom ñu ci bëri correctuñ. biiram daal. baadoola ak xaje ak imbécile. weesuwul ngay jàpp koo xamante ni day saaga ndey nday nit ñi di saaga bàyyi jàmbur yi di xawi sutura nit ñi mm-hmm. reew beew xamadi doon bàyyi buuna piir doon naa feq piir doon jaxase piir ay kilifa ci réew mi di ko woo di waxtaan ak moom ba koy jox ay secret ñuñ xam ñun xamul mm-hmm. yéen ngeen bàyyi fi ñu yiw ñi bàyyi fi def katalu baax yi bàyyi fi wax katalu baax yi di dem ci benn imbécile bu mel ni man taxaw di ko jox ay secret ak di wax ak moom ngir muy saaga ndey nit ñi mm-hmm. ak di xaawi sutura nit ñi kon yéen a yem ay imbécile ngeen rek yéen a bokk mburu foofu fëriñ képp yéen bokk yem rek ba pare bëgg ñoo fatt wala bugg noo rey ak explication yu dul jeex pour ñu leen di teewlu merde à la luñ def ñoo ko tey yow nan ngay fekkee ab fenkat ab jaxasekat ab naaféq koo xamante ni fa mu toog lay toog di tas Sénégal di def lu bon di wax lu bon te yooyu mu leen di tere chaque jour ngeen gis ko mu publier vidéo di fóonante ka raayante te ne yéen moom la leen di wax nangam na ngeen ko bàyyi bu ngeen dugg ci fii te moom lay def ngeen koy gis yéen ay kilifa ci réew mi ak neneen ñu xam ñoo koy woo di wax te yéen yéen a tey li ngeen di def yéen ko tey bu leen ñu noqaray parce que tey koo tax ngeen yàgg xam ni kii lu ngeen ko jox da koy enregistré xam neen ko. Eh mais est-ce que du loolu lañ si bëgg. moo tax ma la kon bu ñu jaay réew ak wax ju bëri xamadi ñoo ko tey li ñu def ñoo ko tey. mais est-ce que maanaam li nga xam nii ñoom ragal nañ ko jàkkaaroo kii di Wally Ballago Seck wax ko face à face à face moom lañu bëgg waaye Seck xam ko moo tax ñu jaay moo tax ñu jaay la ko si kii di Adamo léegi kon jaru ko nit ki boo ko ragalee kañ bul ànd ak moom bul fi fréquenté ak moom te ana góor di ragal góor nga yor yàpp bu am sidit muy jug mu yor yàpp bu am sidit muy jug bu tëlee nga tël ah ok lu mu def nga def ko. Mhm. nga koy ragal fii yàlla moo jar a ragal fii kan la ñuy ragal keneen. nit booy ànd ak moom te mënoo ko wax dëgg toogal sa kër ndaay ak sa kër baay nga réglé. du jëm ji lay ragal mais lu mu yor moom lay. waaye lu mu yor gàtt. suñ borom joxe lu ko neex ak ku ko neex la koy jox. Mhm. waaye suñ borom ko seppi mu leen di neex mu leen di neex étoile la. yar bi moom la daal leen di naqari di leen naqari étoile la. ko yar bi moom. neex naqari yàlla da ko jiital. ku te ku yàlla jiital dañ koy jiitu. doo hmm. ko jiitu boo ko jiite juutu. waaye man nekk ak yow du tey dama lay wax dëgg. bu fekkee nag dëgg la. gis nga ki am. ki am. ba ñëpp di ko yéem. ki doylu rek a ko yéem. loolu dëgg man loo am am am am am am koo doon doon doon sama fukki dërëm yii ma yàlla dogal mhm. ma yor ko fier naa ci ndax maa ko ñàkk ba am ko fier naa ci say million téyel bu ñuy ànd dañuy ànd ci dëgg mais est-ce que ñuy ànd ak waale xam nañ loolu moo tax ma ne la ah, affaire de baadoo lal yàgg naa la ko wax ne la dëmm affaire de dëmm la ku jekku sa moroom ñoom dañuy xool nu ñu jekkoo waale ngir lekk ko waale tamit ne dama leen di jekku lekk leen rek amul ma dem te waali newoon naa la fi waali du ngaaka bandi serveur yaa nga ko wax yàgg naa la wax waali luy daw suba ba ngoon ramdaan yi boo yi di manigancé un deux trois ba quatre vingt dix bay waaj a àgg cent waalee la gën a xam liy xew yàgg naa la ko fee man su ma déggee sax ça veut xam na lépp luy xew mais da leen bàyyi seen biir ñoom ñu lekkan seen biir jaxase seen biir reen seen biir moom sax da di lekk waale balaa nga ko lekk mu lekk la gi paa yi lekk mais jaxasante. maanaam pour pour te dire loolu laa la bu dee dañuy jaay dëmm waale balaa nga koo lekk mu lekk la booy jaay dëmm balaa nga koo lekk mu lekk la waale booy jaay jinne balaa nga koo jom jommal mu jommal la waale booy jaay bëgg dërëm balaa nga koo jaay bëgg dërëm mu jaay sa mbege moom la ni maa la gën a kon waale leen gën a wuyu junni yoon maanaam moom gënuñu seen bopp te pourtant Thione sekk ci la leen yar. xam sa bopp am personnalité. mais mais mais ku si mel ni Amadou Badiane mënoo ko wax gëmoo boppam parce que moom ba Wally amulee dara la ko topp ba léegi est-ce que du maanaam fu mu toll nii Pawlish Ouzin Keita lañ am raison si kaw képp nga xam ni ñoo leen xas naa ne lañ jënd maanaam lañ commencé changer lañ commencé di saaga Wally Ballago Seck est-ce que kii di Pawlish ak Adamo fu mu toll nii du maanaam ñoo am raison si kaw Wally Ballago Seck est que que ñu taxaw foofu xalaataat te bàyyi maanaam affaire de farbeek affaire de bëgg bëgg bëgg Wally Seck. Pawlish de man en général dama ko waxkatu dëgg la ci yenn yi. boole si Adamo pourquoi pas. ak nit ki lu mu dafa naan je je veux pas ñuy jël maanaam Adamo que day jaxasee Adamo que day yàq nit ñi que des fois boo waxee dëgg duñu wax ne Adamo wax na dëgg. fu mu toll nii tey ji bu Sénégalais yi commencé di xëpp seen bët c'est grâce ak aada c'est grâce ak ak ak kii di Adamo loolu nag Ousmane il faut que tamit ni d'accord ak lu mu mënti doon parce que audio yi mu yore Adamo mus la wax. Adama musul tuumaalit musul wax na yaa def lii te génnewul ay preuve Adama mënu musul sosol nit Adama mus mu ko gis mu wax li nga xam ne nii après day ñëw ne Adama lu waxoon yëpp dara amu si te moom buy wax dalay tegal ay preuve yu leer bu mu nee Ramadane dafa am ay problème Sénégal yi bëri commencé naa non Adama day yàq Adama dafa bëgg fu mu toll nii viré dem Makhtar dem si Makhtar suba teel wala ànd ak ñoom Sidi Diop Adama ne ma li may wax yëpp ay preuve bëgg ma ko woon te yàlla dogal na day def loolu mm-hmm. tey wax wax ju nite jaar yoon nga dégg ko xam ne lii dëgg la mm-hmm. nit boo ànd moom da nga ko wax dëgg boo ko mënta wax dëgg rek bàyyil moom nit moom bu ne da di ànd mënu leen waxante dëgg na leer ni ngi lekkante fa la lekkante tàmbalee parce que yéen a ngi jayante te bu ngeen jayantee rek wéet buy am ngeen jëwante mm. te jëw mooy lekk ni waaw nee neen la sax ci xiisa ba bi lay nettali waa ji nga xamante ni dafa waxoon ci toog ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu juddee daf ko rëkk ba mu ko rëkkee am lu génn muy doo ndawal mu ne ko nii nga koy def kon jow lekkaate la mhm. moo tax ànd jeente wet nga lekk nit ki mooy jow jaru ko mhm. dañuy mën a ànd ci dëgg maag yow ñu ànd ci dëgg nañ ko ku nekk dem la ngoon neex na waaye koo bàyyi mu dem ak mbàggam Sénégal dañuy faral di waxee ni waxee fi neexul waxee fi neex na dangay wax li nga gëm. ku mu mu dégg ko ku mu arrangé wul mu saaga la ndey moo xam. déggee fi kon moo neexul. déggee fi sax neex na ku nekk da ngay bëgg a dégg li la arrangé ñoom duñ calculer dëgg ak wax ju jub mën nag sama yoon nekku ci li nga xamante ni moo nekk sama xol ak ma bëgg ko wax mën na doon dëgg mën na bañ a doon dëgg mën na jub mën na bañ a jub waaye loolu nga gëm parce que loolu laa gëm te nit laa nëbbu ma ko dama koy wax. ki mu arrangé xëy na maa ngi moom ñu bokk xel day d' accord ki mu arrangé wu daf may saaga ndey baal naa ko amul benn eh, muskil c'est normal la démocratie. voilà ku nekk am nga droit maanaam xalaat la neexee. <laughs> parce que ñu bëri jàpp nañu fu mu toll nii am xam ne seen mbëggeel si Wally Ballago Seck jàpp nañ ni Wally Seck ak lu ko waroo ko wax dara waroo ko wax dara loolu loolu ndof la yow lu yow lu lu lu yonent bi amul suñ tubaab amul ko si danga keneen keneen Wally Ballago Seck mii dina ko am. mukk xalaat yow kon nañ réglé fii ku ñu war a wax dañ lay wax ku war a dégg da ngay dégg koo mën ci doon. mais dëgg tamit est nekkul ne Wally Ballago Seck mu toll nii moo war a teg tànkam xoolaat bu baax a baax fu muy teg tànkam arrière xoolaat ay nitu démbam parce que tamit oust ak lu ñu ti wax lii musul xew maanaam si si si Ramadaan coow lu bëri. musul xew si Ramadaan dafa musta am sax musul fa am. ba ay Amady Ba nekk fa ay Amady tout affaire ñoom mi fa nekkee maintenant bu fekkee ne nag est que. maanaam kon nu koy waxee woon sànq maanaam ñii dañoo ñëw lu su mel ni euh, nu koy waxee ñoom am na benn tur sax bu koy xaw ma faram fàccee xaw ma lu nga koy tuddee noonu donc lu su mel ni Omaro lu su mel ni Baye Zale lu su mel ni neen ak neen ñi nga xamee nii maanaam ñëw nañ bees coow li daal di commencé est-ce que ñu fi fekk la seen xool xat wala ñu ñëw maanaam ñoom ñoo créé problème bi est-ce que loolu Wally Seck war toog xoolaat bu baax a baax tamit lan mooy problème bi parce que lii tamit da koy yàqal ak lu su munti doon. en tout cas toog xool ñàkk a toog xool. doful jine jàpp ko bëggee lépp normal moom normal la Wally Ballago Seck <laughs> bu bëggee foofu normal. dina normal non est-ce parce que da nga bëgg jàpp ne saa bi kon Wally bëgg coow lii. ko bëgg. bu bëggee mu normal dina normal. waaw parce que mooy seen chef. kon bu bëggee mu normal rek dina normal. billaahi bu bëggee mu normal mu normal. nga yëgata la li mu yëg dafa bëriwul mhm. day teeli teel li mu yëg a bëriwul ndax borom mbaax la mën na xam lépp dëkk bi toj ngeen di def yu leen saf mu kuul rek waaye lu mu bëgg a lijjanti ci une minute mu pare moom waa li loolu mën na ko yàlla dimbalee na ko mhm. yàlla mooy may te may na ko loolu mënuñ ci dara dafa may li nga wax ni ak kii di Pawlish Mbaye lañu wax xaw noonu duroo tuuti tuuti xam naa bu ñëwaatee dégg na ma amati naa dëgg nañ dem déglu kii di Pawlish yi nga xam ne nii moom tamit na ko jëmale ko maanaam si problème bi nga xam ne moom lañ jàpp ne. am na sax ñu dañ ko fay li may wax dafa lu li may wax du lu bon saagoo ma la waali li ma wax dafa facile waali na xam ay nitam loolu méttiwul nit ñi ko bëgg a méttil méttiwul c'est que man méttiwul c'est que man gis foofu benn problème man aw ma benn suñu giseen doom dañuy waxtaanee normal normal barke alxuraanu karim normal amuñu ci benn problème en fait amul aadama ak problème amul man problème gisuñu fi problème parce que aadam damay wax lenn pour nit ñi xam ko sama xool ni mu ni mu amee yërmande aadamoo vocal yi mu yor ci àddinaam su ma ci teg sama bàkkan bu ko génne àdduna tukke billaahi wallaahi barke alxuraanu karim billaahi dafa dafa am benn wax bu ma wax dem ci guddi bañ laa fi mu ne ma mu ne ko mu ne ma waa laa ci xool bugguma ànd na moom nit ab yàqu bugguma ànd na ma kenn yàqu parce que dama ko bëgg day day nduru damay xeex waali o man damay xeex waali parce que Pawlish ku ne xam ne ni su ma waali bu nekkee Europe foo mën rek Europe bi damay ñëw waali fayalu ma xaalis sama hôtel maa ko jël lekk lépp yërmande la ak bëgg damay dagg sama liggéey ndax waali mais nit ñi ñoo comprendre man ne ma tontu ko ne ko nit boo tollee ci benn nit bu déglu commenté boo déglu commenté di nga wax loo war taw wala di nga def loo war taw def commentaire yi des fois nga des fois say noonu sax di commentaire ci lu bon nga naan gisoo dara fekkoo dara gëmmal toxlu nga bàyyi lépp xam ne ñun danoo li ñuy kaas méttiwul li ñuy kaas du lu bon lu ñaaw ñun nag su di ma ko bopp lañ ku ne waa xam waa ni moo xool ni muy bëggee bëgg-bëgg moo ko moom du ñu ko wax bëggal ko bàyyal ki nañ droit gis loo xam ne lu ñaaw la ñu ne ko lii ak lii ko parce laa jublu. moo ngi noonu Ousse lu nga wax sànq dafa may dafa ñëwaat est-ce que fu mu toll nii Wally Seck waru bàyyi xel ne kii di Adamo kii di Pawlish fu mu toll nii ñoom ñooy ay avocat ñoom ñooy ay waaye tamit ñoom ñooy ses meilleurs amis. meilleurs amis du la yàq. mais yàq ko da koy wax dëgg. protège du la yàq. est-ce que fu mu toll nii jaawale wuñ maanaam ku lay yàq ak ku lay wax dëgg. wax dëgg bu mën a tasub réew kenn du ko wax loolu du wax dëgg fenn la wax dëgg du tas ana sutura. wax dëgg du yàq. mais am na dëgg yoo xam ne am na am na yenn kàcc yoo xam ne boo ko nëbbee. tamit ah, mën na tas ah, réew ah, maanaam ànd buy dem nga bugg ko defar kañ. dëgg ja nay doon sutura. dëgg da nay doon lu ñuy waxtaanee. waaye dëgg ja du lu ñuy weer. ndax daan bu amee problème nga taxaw ci télé wala fu ñëpp di déggee nga ne sàngam yëgal nga ko àdduna foofu dëgg amatu fa yamatul di mm-hmm. Wally Seck ku ñu suturaal la mais est-ce que sutura amul fu mu war a yam ankay sutura sutura kañ jeexal na Wally Seck ku ñuy suturaal la parce que dafa nekk Sénégal am fi ñu ko bëgg lool am fi ñu ko bañit lool mm-hmm. te yéen ngeen di dangeen ko bëgg lool kon bu ngeen yoree seeni dëgg ak nu ngeen war a waxtaan ak moom ak nu ngeen war a communiquer foog naa loolu dafa war a doon ci suturam mhm. mais pas looy teg ci public bi ki ci war a jot jot ci ki ci warta jot jot ci mhm. loolu weer waali sekk la nga foog ni boo taxawee ne Ramadaan nangam sangam koo weer Amady Badiane koo weer Mbaye Si Ndiaye koo weer Lil Pro weeroo leen waali sekk nga weer boo saagaa waa Ramdan Wally Seck nga saaga. boo toroxalee waa Ramdan Wally Seck nga toroxal parce que Wally Seck mooy Ramdan. Wally Seck bu jógee Ramdan kuy des Ramdan. day tas bu sekkatul ak waa Ramdan ku lu Ramdan di doon. Mhm. kon kooku mooy Ramdan wala doonul Ramdan. kon booy wax ci Ramdan kan nga war a waxal. tôt ou ku ci bëgg gis Wally di ci gis Wally ku ci bëgg dégg waale di nga ci dégg waale toowu taar nag muy benn at muy ñaari at nañ gudd fan waale daanaka du toog at yu mu demul pari wala fenn fenn te fu mu fa dem waa ji fekk ko fa ana nga xaar waale bu dee dëgg la looy defar la ngay woo nit ñi téléphone ak di waxtaan ak moom wala audio yi nga am nee nga daa leer dëgg la nga envoyé ko ko moom ne ko nag envoyé wu mën la lii pour yàq dama la ko envoyé pour defar ngir nangam nangam woowal sa waay woowal di woowal di ngeen toog waxtaan moo gën ngeen defar seen biir ñu defar sunu projet dañ demandoo moo gën ñu yàqante. moom wax na ko nee na Wally Ballago boo ko envoyé tey day toog heure boo ko neex pour tontu ko. doonul kuy gis message saa su ne ak di ko lire ñooy ñan ba dañoo war a seen message dafa war a dem rek waa lire ko pour la moo tax rëy gi yooyu leen di métti dañ wax seen bopp leen métti ñoom. ñoom yi ñoo méttiwu leen de ñoom li ñuy bëgg am te amuñ ko à cent pour cent moo leen métti mais ñooy ñan kuñ doon ba par force dañoo war a woo waali jot ko dañ ko war a vocal par force mu tontu leen pour lan waali ñaata nit a koy message booy ñaata nit ay vocal waali xanaa xamoo ni waali booy ànd ak moom bu ko dimbali sax yooyu da nga ko ci war a da ko ci war a génne ndax ci nga koy dimbalee mhm. loolu ci nga koy dimbalee yaaram mais yow ci loolu yow boo messager waali tontuwul nga mer tey waali boo ko messager mu tontu la nga kontaan mais loolu yëfi yëf hypocrite la waali yàgg na laa fekk fu nekk sagal la